aujourd'hui son ko man ñu ñu ne Ousmane ko bokk na ci élection yi moo ma gënal ñu ne Jomaay parce que Ousmane laa gën a miin moom laa gën a gis mu dox wax ma dégg moom laa gën a xam. man ah, xaw mais mais est-ce que du nekkul de luñ ko ko xañ. non non non laisse ma laisse ma t'expliquer. ma laisse ma t'expliquer xamuma Jomaay. Mm-hmm. xamuma ko on me parle de lui mais je peux pas tëb rek ñu wax ma ni ma ne kon moo fi gën Ousmane laa tàmm gis moom laa miin moom laay déglu 2011 ba léegi. gis taxawaayam ah j'ai plus la facilité à avoir confiance en Ousmane qu'en Diomaye que je connais pas que je découvre même bu dee après dañ ma ne non Ousmane nee na ko baax la ma daal di gëm rek daana woy Ousmane nee ko baax la mais non par contre du yoon tey ñu ne dañuy reprendre processus pour Ousmane bokk comme yàlla dogal na Diomaye mooy candidat bi doon na Diomaye dem élection loolay dëgg yàlla dëgg la bëgg lu ma bëgg bëgg bëgg Ousmane Sonko lii war a tax mu nekk eh, hélas passé na échange bi jàll na te constitution bi mënuñu ko jël teg ko ci suuf parce que dañu bëgg a doxal leneen loo xam ne àndut ak li constitution bi décidé mm-hmm. c' est là où j'ai un problème mm-hmm. et foofu laa wax ne le dix dix sept candidats yi d' accord ci dialogue bi ak population sénégalaise dañu war a focus def benn nit benn say wax président Macky ne ko tànnal date balaa mois mois mois d' avril bi loolu mooy dëgg. waaw pourtant ñu mel ni Amadou Ba bu Pastef nekk mandataire Bassirou Diomaye Faye moom loolu la wax nee na pro proposition bi nga xamante ne nii gars yi def nañ ko bu fekkee ne dañ ko def mooy dañu nar a li nga xamante ne ni moom la décision yi conseil constitutionnel def parce que lu illégal la te daf warul nekk sax lu ñuy négocier. kenn du ko discuter. c'est-à-dire que président Macky Sall moo nekk di agresser ce peuple là di agresser la constitution sénégalaise c'est ça loolu mooy dëgg. moom dafa jàpp ni noo xam nga ñeneen ñoo xam nga ñun il faut benn instant aussi il faut pas il faut ñu respecter ñu on ne peut pas aujourd'hui Sénégal ni mu tëddee mais imaginez le président Macky Sall nekkoon opposant tey du ko nangu. Mm-hmm. dina raak dina rey boppam je l'adore pour ça. Mm-hmm. j'adore le président Macky Sall bu ko kenn dagg nag naan pas Assane nee na j'adore le président Macky Sall di ko yemale foofu dama ne ba xam sa xam na ma dëkk bi dañ da ngay gis benn waa APR bu dem dagg ko tas ko nit ñi ŋàbb la j'adore le président Macky pour fulla bi nga xam ne am na ko la mu bëgg a def dana ko def ce que je n'adore pas c'est que le peuple et les opposants amuñu apparemment fulla yi lànk la président bëgg def te du dëgg du yoon hmm. foofu la maa waxee aujourd'hui le peuple sénégalais si si valeureux si xam lu baax warut nangu ce qui est en train de se passer benn groupuscule d'individus dem toog jam ñaajo toog tranquillement sol seen ay drap taxaw ne way boo way président réew mi doo doo ko sànni ah doo ko kii mi doo ko sànni ah doo ko kii mel ni ñooñu ñooy représentant peuple bi ah, te pourtant waa ji nee moom doyal na sëkk non ka doyal sëkk nag du dara sincèrement organiser nu sanu date conseil constitutionnel nee la le 2 avril la sa mandat di jeex utal date balaa le 2 avril noonu de Dieu les meilleurs délais foofu nag peut-être conseil constitutionnel jàpp naa ni ñenn ñi am doute ci conseil constitutionnel xam lu ñu wax dañ ne conseil constitutionnel dafa diviser la poire en deux mel ni kuy tracer le président Macky Sall beneen yoon. Hmm. alors que daf ko waroon wax ne ko choisissez une date avant le 2. préciser que que hmm. mais dans les meilleurs délais le président peut se dire oui les meilleurs de décembre hmm. c'est peut-être wax ko ne ko monsieur président. fii du royaume hmm. fii du dëkkab kenn sénégalais yépp ko bokk hmm. na sénégalais yépp jóg taxaw nag ne ko président Macky Sall sa mandat daxaa jeex le 2 jëlal date balaa mois de mars bi ñu avancé ces histoires de le 2 juin ça c'est de la fumisterie loolooy dëgg. nee nañ koor gi daaka bi ñoom daal. waaw non xanaa xanaa élection mosul am Sénégal. Ah. xanaa daaka musul am xanaa koor gi musul am xanaa leneen musul am suñu mbokk catholique yi du ñu du ñu ngi woor. waaw du ñu taxawal dëkk bi ndax karem bi. nañ arrêté liggéey bi ndax këram bi bu ñu paree koor gi bu ñëwee ñu arrêté liggéey bi ndax këram bi c'est de la fumisterie c'est de la lâcheté hmm. c'est même de la mesquinerie hmm. c'est de la truanderie c'est de l'escroquerie c'est de l'escroquerie c'est de la méchanceté hmm. et c'est de la haute trahison c'est de la traîtrise mais mais personnifiée saay soxna si yàlla dëgg la bëgg man nag benn cat la ma amee te ma borom dong ci la ma wa ci moom la ma wàkkiirlu cër rek la ñoo jox ñëpp ña demoon ca dialogue sanu ay baay lañu déglu nañu docteur Tine qui a honoré la peuple sénégalais de l'église mm-hmm. il a honoré sa peuple la wax dëgg bi président conseil constitutionnel li mu wax il faut respecter ça il faut respecter les gestions am na ñett ñu ma dégg ñett mm-hmm. le représentant des Ibadou Rahman sunu baay boobu euh, la représentant de l'église ak xam nga kan koo xam ni nit ñi bàyyiwuñ ci xel ci kàddoom Amadou Ba. Ah, Amadou Ba ok. il a dit au président Macky Sall il faut respecter les institutions il faut respecter le, le, la décision de l'institution il faut du conseil constitutionnel il faut organiser l'élection à bonne date. à bonne date c'est quoi. mooy date bi conseil constitutionnel wax avant le 2 mm. il lui a parlé ce que j'ai compris mooy Amadou Ba mu ngi wax ak président Macky Sall diggante ñoom ñaar benn kàddu la ko xamal te loolu sa veut dire quoi attendons-nous demain à ce que ñoom ñaan ñu jàmmarloo bu baax bu fës nag jàmmarloo suuf la jamono bi jàmmarloo bu fës ci kaw li noo gis lépp mm. furaas mm. la réalité moo di ne reprendre le processus tout reprendre mooy les dix neuf candidats dix sept candidats yi mm. boo xefee ñoom sax boo xefee ñi ci bokk du bare beneen bi mooy Amadou Ba boo fexee moom dañu kaa teg de côté léegi qu'est-ce qui va se passer nga teg ñooñ de coté da nga leen di sàkkal pexe sàkkal pexe boobu nag kese am fula doo ko nangu. Mm. et c'est là où réside le danger pour le Sénégal. moo di ne président Macky Sall mu ngi jël décision boo xam ni suba mën nañu indil coow loo xam ni maar day um si mm. moom mën na dem bàyyil nu ko fi yàlla ñu ci yàlla musal donc dëgg bi moo di ne na ñëpp Sénégalais yëpp jóg taxaw ne ko monsieur le président li nga bëgg a def ni mënut a ne mu arrêté li moo def jël dat ñu dem. doyal nga sëkk. d'accord ma saay loo bëggati. parlant du report Abdou Mbow nee na moom mi ngi niiyee ne euh, Macky Sall du moom moo œuvré li nga xamante ne nii moo di report élection yi d'après bi ñu gisee information yi moom loolu la wax. waaw non waaw xam nga j'ai beaucoup de respect à l'endroit de monsieur Mbaw Abdou. mu mm-hmm. kasiyaat bu baax di ko nuyu. Mm-hmm. mais je je commande pas ça. ah bon je je commande ah, pas mais pas ça nag yow yaa chroniqueur nga nag dañ la fi pour nga je peux peux pas commenter ça du lan ma du ma loolu la wax ok je respecte. mais je peux pas commenter ça. d'accord il faut pas il faut pas qu'on ah. nous crache dessus aussi. il faut pas qu'on nous crache dessus. Mm-hmm. doo def li nga def pare di nu narguer quoi. Mm-hmm. ce qui se passe le président nee na doyal na sëkk du ma moo sàkku report du ma moo kii est-ce que au dialogue on a parlé de l'enquête parlementaire il n'en a même pas parlé. est-ce que ñi seetaan ñëpp toute la journée. dafa mel ni loolu dañ ko bëgg a gas. non loolu prétexte la woon. prétexte la woon pour nous faire ce sale jeu là. Mm. c'est pas gentil ils nous ont joué un sale tour bu yeboo Sénégal yëpp lànk ko tegul fenn. Mm. loi d'amnistie bi forum civil ñoom génn nañ ñoo ngi ñaawlu niñ ko bëgg a doxalee nee nañu Macky moom nekkul du bonne foi lay demee yi muy jël mm. décision yi muy def nii yëpp nekkul du loo xamante ne nii lu. mais c'est ce que tous les Sénégalais disent. Sénégalais yi ëpp te bu nu kenn wax bala ma dee boo waxee ñu naan woy ban baromètre moo lay permettre nga wax. te dans na ñu génn ci mbedd mi laaj sénégalais yi sénégalais yi dañoo mere Macky Sall ak nguur gi ba mais ba ba fut dafa di nag mer bi egg na benn niveau boo xam ni dafa dem sax ba nekk de la haine et c'est dangereux président Macky Sall mënuloo jël dix-huit millions de sénégalais téye leen en otage ci ay feem ci ay micmac ci ay wax ci ay kii ba pare taxaw ne noo du man du kii c'est pas possible. Mm-hmm. nit ñi nit ñi dañoo am xel. Mm-hmm. nit ñi dañoo am xel di xalaat di xool président Macky Sall di ko déglu kàddoom yu bëri ñu am. ak malchance la muy wax ak jëf bi du doon benn. Hmm. li ci bëri te lu nu dund la du lu nu sàkku lu du loo xam ne dañ ko créé. Hmm. dañoo toog gis dund ko ak moom hmm. lu bëri lu mu nu wax gisuñu ko. waaw léegi ñu ne amul problème échéance bi jot na léegi nga jël échéance ne dama kaa repoussé mais loolu c'est la haute trahison soxna si. li noo wax ni yëpp forum civil li ñu wax dëgg la léegi nag président bi nanu timbali ñun dëkk dañ ko jox bu normal bu mu taal dëkk bi. ñu jeexalee ak libération euh, de détenus di politique tey sax seetlu nañ ne Bentalib Sow ak Ibrahima Gueye nay leer Bentalib moom déggoon nga charge yi ñu tegoon ci kawam bàyyi nañ leen waaw malheureusement léegi am na yenn charge yoo xam ne bu ñu ko tegee sa kaw xëy bàyyi la hmm. xëy na <laughs> y a deux choses soit lu ñu waxtaane la ba tënk d'accord wala boog nga xëy rek am sa baaxu bopp def ko hmm. waaw taxawaay bii ma gis président Macky am ko nag ak ak ak baax baax yaakaaruma ne ànd na. Hmm. koo xam ne jël na décision bu fekkoon dañoo xëy rek président bi doxal mbir mi yoon yépp te daal di tënk nag amul problème ba paay ba pare bàyyi leen. ma hmm. président ka baax la. Hmm. donc j'ai j'ai un problème je suis content que ñoom ñëpp di génn te yàlla na yàlla génn ñoom ñëpp. nekk ci jàmm yaa ngi xaar libération Ousmane Sonko. mais c'est ce kenn waru koon jàpp sax c'est-à-dire que le régime là temps bi mu waroon consacré wu ci liggéey liggéeyu ko daf ko consacré ci benn adversaire politique mu léegi nag adversaire ba sax moo ko daanal moom le président Macky Sall a per a tout perdu à cause de Ousmane Sonko a tout perdu quand je dis tout ça veut dire tout perdu crédibilité honneur tout ce qu'on veut tey jii nii li ñuy am xam la mu doon il est le président la République jusqu'au 2 avril ma bi la ñu am ak moom basta mais affection ak tendresse ba ñu amoon au début amoon ko ci moom ak yéene ne vraiment qu'il réussisse hélas moom daf ñoo tooñ tooña tooñ ba fu nekk ñun dañu am benn benn sentiment de répugnance moo di ne bon tant que Euh, demul rek on ne peut pas être bien et ça c'est dangereux pour un dirigeant quand on est leader leader dafa séddale di seddoo du séddu et on a vécu avec ce régime là ak séddu nañ libérer tout le monde bàyyi nit ñi ñu dem joxe suñu nguur ñu dem ci jàmm ak salaam c'est tout léegi way yi ngay toog ak yow mobilité bi nga am mbaasan tey mi ngi sans limite mbaasan tey mi ngi solution suba mi ngi wal fajiri 2S mobilité boobu yow doo di sonn parfois non c'est pas une mobilité yàlla na ñu yàgg yàgg mobile yàlla na ñu yàgg mobile macha allah c'est c'est on est dans un contexte où la réalité a changé bu njëkk danga daan toog ci benn télé ñu ne la doo dem fenn wala toog ci benn rajo doo dem fen adduna bi changé na yow sa téléphone sa télé la yaa ngi toog sa télé di wax sa téléphone heure bu la neex. Mm-hmm. man noonu kereen noonu la vie a changé la communication a évolué le monde et dans un autre. firmament donc aujourd'hui euh, faire trente minutes ici une heure ici et cetera loolu mooy contexte actuel moo di àdduna bi hmm. dangay gis koo xam ne dafaa toog këram ci téléphone am lay gagné àddunaam kon nga xam ne lépp soppeeku na donc nga gis ñu ci télé bi wala ba sa des ala mbirab sunu borom dañ ko kaa sante ba baax a baax a baax bu fekkee daf noo war a jox ay millions dañu kaa jël bu fekkee nag euh, seen wërsëg la ñuy nu nu ko waa yàlla di joxe boo nu invité ñu ñëw ah. bu nu saa limite invité ñu dem bu la ah. ko invité ñu dem lii rek la te dañoo tollu ci jamonoy wax nag dëgg te yàlla tax hmm. fa nu ko waxee baax na hmm. la sa des nag hmm. ka mu neex ak ka mu neexul ka bëgg ka bañ ka nangu ka nanguwul ka mu saf ka mu saful kamu soof ak kamu soofu <laughs> ñun suñu borom sunu borom dong la ñu wàkkir képp doy nañu xulil awee ah. kii rekk doy nañu <laughs> la sa des noo fareegee ñeent. Mm. kii rek. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak um, xale yi gis naa fa ni sa sarab lii bi ñu ngi ko jël jëm si kay ay affaires yu nga xamante ne nii. Euh, j'ai vu c'est c'est c'est regrettable ce que je bon après sarab lii bi am na ñu naan saaga la je bu bu ñu eggoon ci benn terme bi. Hmm. la kaa doon moo tax ma ne àgguma sax mais sar wi sar wi lii daal acam à un moment donné dans un contexte ou l'autre ça veut dire un sentiment de dépit terrible li ñu naan boo ci mënoon dara boo ci mënoon leneen lu lu dul sarab lii daa ko ci def sauf que nag ca sarab lii nga mën a yem. mais Paa Assane moom foofu léegi te da ngay way. sunu waaw mais mais xam nga loolu yëpp nag c'est parce que ñaar a am. avec le président Macky Sall da ngay mer. daa mer wala nga jooy le président ne nous permet même pas de rigoler de ricaner alors nous on on refuse le stress. lànk stress bañ stress bañ stress moo tax ma ne damaa dugg ma kër toog ma taal ma ecran lekk ba suur naan ba doyal mm-hmm. gàddu ma plis la daggal mm-hmm. daggal ka mm-hmm. képp koo xam daggal na ma la nag baa gisee mab daggal xayru baa ko gisul jàppal ne maa nga toog mab kër la daggal la ba baax parce que lépp loo xam ne teg nañ ko askan wi bu dul lu baax <laughs> ah. kanu ko teg ah. jàppal ni mm. mere na ma la macha allah <laughs> ay ca looy yàlla na fi yàlla def jàmm. <laughs> wàcc fi xéewal et defal jàmm président Macky Sall ak ñi mu àndal. Hmm. ñoom ñëpp parce que benn moment xam nga ragal léeg dafaa defloo nit lu mu warut def tiit gis nga nit di nit dina tiit def musiba le président Macky Sall sénégalais yi moo xam ñu mere ko ñu bañ ko mere sénégalais bonul. wallaay il n'a qu'à moom ak ay ñooñam ñu dem ci jàmm ak salaam la ñu jëf nag ci musiba maa ba kumba ëpp na moo tax amaana mënuñu tëb rek dem. parce que ah, def nañ fi ñaaw ñaaw yu bëree bare bëri mais Sénégal à la ah. Sénégal nous avons un bu ñu yàlla jox boo xam ne sénégalais soxorul na président bi dem ci jàmm ak salaam li ma lay wax nii ah. bala xam ñu ne président ma ngay dem jël na avion mu ngi tàggoo di def au revoir di dem ci nga bu taxaw naan ndeysaan ay eh, yow dama ko yërëm mm. te sénégalais boobu amaana da ko doon yekk loolu ak loolu ça c'est nous mm. donc disons une chose que président parte en paix mm. moom ak njabootam ak ñi mu àndal nanu dem ci jàmm ak salaam te nag sawaay mbir ba la dénkee dara bu yàqu sa loxo Sénégal ñoo far vraiment ça fait plaisir xam nga rek ma dalal la waxtaan bi neex na am na solo te daañu ci jëlee njëriñ euh, di jaajëfal euh, tamit képp ko xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel ci solution TV solution info wéy leen di abonné ci suñu ay plateforme di jaajëfal Serigne Fallou Goumbala mi doon réalisé jox leen di dajee beneen àllarba ak beneen gan <laughs>